jeunesse de de Dakar jeunesse bi nga ne moom moo taxaw jëm asiko may asiko waaw asiko may leen ñu léegi nag dama bëggoon ñu déglu def ba nga xam ne du am bruit. je veux plus de bruit s'il vous plaît madame on veut plus de bruit da nga bëgg déglu ma léegi jeunesse Dakar asiko may leen s'il vous plaît on est venu ici pour écouter le message du ministre de la jeunesse s'il vous plaît déglu ma de Dakar mobilisation bi ñu def on n'a pas seulement mobilisé les jeunesses de l'APR on a mobilisé la jeunesse des quartiers la jeunesse de la banlieue la jeunesse saine la jeunesse qui refuse la dictature de l'opposition léegi dafa am kenn koo xam ne ne moom moom Dakar mooy borom Dakar mooy grand serigne de Dakar bay joxe ndigal joxe na ndigal nee na xale yi nañu génn le 15 le 16 ak le 17 mais nous le répondons en lui disant jeunesse bi nañu génn jeunesse yi seen kër la ñuy toog jeunesse bi duñu génn jeunesse bi dañuy xëy dem liggéey lu koy leeral ne ñun jàmm lañu woote neexuñu salaam ak yërmande loolu la ñu woote Sénégal dama président Macky Sall li mu liggéey ci Ndakaaru liggéey ko ci Sénégal yaakaar naa lu mu soxla mooy réew mu dal réew moo xam ne ñëpp dañ ci gis seen bopp. moo tax ñu bëggoon wax la jeunesse bi nga xam ne elle se fortement mobilisée aujourd'hui pour venir jeunesse boo xam ne fayu ñu leen 100 francs pour ñu ñëw fii waxoon nañ fi la dernière fois que on va mobiliser 2000 jeunes voilà la mobilisation de ces 2000 jeunes. est 3000 jeunes ici au siège c'est la jeunesse saine de Dakar c'est la jeunesse boo xam ne dinañu taxaw dans nos quartiers dans nos maisons dinañu taxaw et on va mettre en place des unités de riposte des unités de sauvegarde des investissements de l'État état bi lu mu liggéey fii ñun ñoo koy gardeloo suñu bopp c'est vrai les forces de défense et de sécurité feront le travail mais nous aussi nous ferons le boulot moo tax ñuy woo jeunes bu leen kenn dugal ci ay xeex ñun xeexuñu xeexuñu tey ñu ëllëg ñun lu ñuy wut suñ ko amee suñu kër lañ koy yóbbu suñu yaay jël ko def ko dépense waaye koo xam lu muy wut su ko amee suite boote la koy yóbbu kooku ñu ko topp Ousmane Sonko yooyu askan wi ñu leen di avertir la récréation est terminée parce que la jeunesse elle est debout engage engagée, la jeunesse est déterminée à faire face. ñun ragaluñu ku ñu woo ci teranga ñu tontu la ci teranga ku ñu woo nag ci jaay doole réewande xamadi da nga ci am ba mu doy sëkk ñun dama ne ñun taxaw nañu kem taxaw nañu conn taxaw nañu pour face réew mi kenn ko réew kenn ko yàq dama ne su ma leen ko waxee ko gëm war nañ ne réew mi kenn du ko yàq te bu soobee yàlla le 14 le 15 le 16 on fera face on fera face à toute sorte de mobilisation au nom de l'adversaire jeunesse du Sénégal jeunesse du Sénégal bu doon nangu ñuy instrumentaliser seen souffrance jërëjëf Yewwi Askan Wi bii mooy dernier avertissement l'heure n'est plus à la parole l'heure maintenant est à l'action et à l'acte dans nos quartiers dans nos maisons faisons face contre l'imposture contre l'irresponsabilité contre le manque de courage de Ousmane Sonko nañu xam ne gàtta gàtta la ñu wootee waaye ñun masa masa la ñu wootee ba ñu si dara ku yëngal ñu yëngal léegi jeunesse des quartiers jeunesse de la banlieue jeunesse du Sénégal restez à l'écoute et restez à l'écoute du et le mot d'ordre faire face à l'imposture le mot d'ordre faire face à l'irresponsabilité le mot d'ordre faire face à Yewwi et Ousmane Sonko ceci est le premier et dernier avertissement nous ferons face